dañ si sawarte dañ si am qui tamit siñ ressources kiiwee indil ñu fi mm. ressource bu mel exposer trouver des solutions pour une entreprise nationale comme la Poste mm-hmm. la Poste traverse des moments très difficiles et très très difficiles tey sax bi bureau le ministre jaaroon le ministre de la communication ak sa délégation de la direction générale accueillir comme moo siy mettre extra pour extrapoler quoi génn si doyna war dal daal yow en tant que ressource li nga fi développer ñun xam nañ ko ban perspective ak yan conseil nga am par rapport à une société nationale comme la Poste qui est en ruine parce que sànq wax nga ko da nga le premier ministre fait que une économie en ruine mm-hmm. il y a beaucoup de choses à refaire dans ce pays-là sur le plan économique sur le plan culturel social yow y a des chroniqueurs Si ay ressources les ressources je préfère qu'on nous conseille qu'on nous aide qu'on nous accompagne que nous exposer les plans les stratégies syndicales mais je le fais par rapport à la société nationale qui est la poste que je défends en tant que travailleur en tant que partenaire social ou syndicaliste je ngeen ñu pas conseil pour nous gagner ce parce que les travailleurs sont nañ de ans xamul la seen set les postiers jotaguñ seen salaire waaw foofu laay posé ko. waaw mais day da nga fa toogaatee toogaayu chroniqueur rek <laughs> toogaayu chroniqueur nga toogaatee ay sa ñu dem si sama mbaa. c'est des ressources là te damay leeral aussi waxuma si turu caisse de <laughs> mais naa parce que après dañ si dañ am nañ am na ñoo xam dañ ko si jama dañ ko si dinañ dañ ko mën bañ a yàq bañ a laaj. voilà mën dafa am wax obligation de réserve. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw soo liggéey si yenn kër yi. Mm-hmm. du question sax da ngay nëbb lu grave. waaw mais su fekkee ne bi ngay def émission. ñoom ñoom ñoo la envoyé. mënoo wax si turu. si turu kër mais amul lenn lu mais en tant que sénégalais en tant que ku xam à près si li ma gis si yeneen réew lan mooy poste kër la goo xam ne. en tout cas réew yi ñu ko copier ndax Sénégal tamit lu ëpp ci suñu architecture institutionnelle dañ ko copier si réew mu ñu wax France te nag mbir yi di dox seen réew ñu euh, jàpp naa ne poste dafa nekk kër goo xam ne kenn waru ko bàyyi en tout cas mu daanu si sama gëm-gëm te yaakaar naa ne autorité yi fi ne duñ ko seetaan. Mm-hmm. mu nërmeelu naam nag dina laaj ay fem alors man personnellement si je devais donner des conseils comme lu mu wax mooy d'abord autorités yu mag yi les hautes autorités jóg sauver set maison deuxièmement ñu inspiré wu parce que am na dëkk yu ko am te mu ngi dox. alors inspiré wu si ñoom nan lañ adapté woo si àdduna fi mu toll ndax àdduna aussi suy dox da nga dox ànd ak ànd ak moom mm-hmm. euh, euh, defe naa post si histoire am ñëpp xam nañ njëriñ bi amoon si àdduna waxuma sax si Sénégal si àdduna yëpp y compris Sénégal hein donc ñëpp a ko soxla mais peut-être technologie yi ñoo dox ba yegg niveau boo xam ne peut-être ñoom sax dañu am ay ma ko mënoon tuddee concurrent yemul foofu concurrent yi yemul sax si technologie mais lu mel nii moto yoy di yóbbu ay courrier pour bañ joxe tour voilà <laughs> pour bañoon tudd tour bi parce que bugguma toy loolu suma juuma c'est un service réservé à la poste alors ça veut dire que tay stratégie biñu wara teural comme lima ma wax pour la poste warul ñàkk buñ koy étudier sax ñu dugalaale si ñooñu ñëpp état xalat ben solution globale naam du ñàkk peut-être euh, plan social mais bu xam ne sûrement sama encore je dis damay xalaat hein, tout haut du ñàkk ñii di jiite tam mun si waxtaan ak syndicat waxtaan si ak post poste ñëpp ba nga xam ne réew mi ñu nekk li ma gëm mooy ressources humaines yi ne poste naam ñëpp tolloowuñ niveau. Mm-hmm. mais gëm naa ne am na fa ñoo xam ne ba léegi lu ñu munti créé waat dina leen soxla du fa ñàkk ñoo xam ne peut-être ñoo sax dinañ bëgg defi leneen du ñàkk plan boo xam ne tey Sénégal war na ko mun def pour accompagner maanaam gunge. man su may wax gunge nag du jox nit ki xaalis ak dem comme ni ñu defoon les maîtrisards la. Uh-huh. non. voilà c' est c' est en parallèle de l' accompagnement financier nga ne xaalis a ngi pare naa xam-xam a ngi pare naa léegi yow loo bëgg def kenn ne la man dama bëgg tabax kër luye ko keneen ne man dama bëgg ubbi boulangerie ku ne wax alors selon leur profil selon leur profil à la poste peut-être am kër fii ci Sénégal bu leen war mun gunge accompagnement social et même psychologique. Hmm. pour que ku si nekk ñu xool lan moo gën jekk pour nga defi ko. loolu dina désengorger naturellement peut-être am si ñoo xam ne dinañ defe leneen te dina si am ñu mujj nekk ay champion maanaam ñu réussir du ñàkk nag kaas àdduna moom loo gis dina am ñoo xam toujours peut-être du mais au moins loolu dina génnee ñeneen ñu defe leneen lu mun jur njëriñ mun nañ sax trouver ay créneau pour ñoom ñu liggéey ak poste. Hmm damay xol kër yo xamné ne bugguma tooñ parce que xawma ma ndax ñoom dañ koy neub ou pas mais amna fi kër yo xamné ne sont même dans le secteur privé yu mag dañ am société satellite yu leen wër ay prestataire mais ñu ci bari ay ñu fa doon liggéey ñu bayyi la wala yoy dem nek DG fofu ubbi dara ñu leen jox ay marché alors tout ça ce sont des possibilités mais dal si lima gëm réew melni France réew melni ni Italie poste dañ ko jël dooleel ko def ko une banque postale légui nak en parallèle manam réew genre togg ceebu jën la pataas bi mënul ñor ak ñaam bi bi bàyyi fi jën bi ñu togg lépp ñor dynamique bi Sénégal bëgg a jël pour am souveraineté pour gën a jëm kanam nu mu gën a dem dañu war a encourager l'épargne voilà maanaam sénégalais bi ñëpp mënuñ épargne parce que ñu amul doole dañu bëri mais war nañ mun commencer di tëggee suñu réew ñoo xam ne peut-être ñii di liggéey am yenn moyens commencer di gën a épargner man bi may nekk xale d'ailleurs post bi ma bëggoon def prochainement sur Facebook dama photo sama caisse sama carte na voilà carte d'épargne bu may nekk xale am 11 ans et vraiment euh, peut-être yàlla moo dogal sax ñu bokk plateau bi bi ma ko photo léegi ëpp na un mois chaque jour dama ne dama siy dama siy bind pour fàttali sénégalais yi ne pourtant am na fi jamono ñu encourager élèves yëpp ñu ubbi euh, compte mais genre approche yooyu déjà mën na gungewaat société bu mel non et il suffit à mon avis en tout cas à mon humble avis d'une volonté politique té man lima gëm moy kèn warul sétane autant de personnes ah ñu ñu ñu nërmeelu non hmm. ndax jàpp ma ne faute la politique raxna ci ndax nak naam indi peut-être sax régime changé hmm. mais régime bi ñëw tam euh, nit ñi am nañ ci ñom yaakar euh, yaakar nañ leen trop ci jafe-jafe yu mel non ñom ñu jël ci ay mesures mais gëm naa ne ñu ko jël. voilà loolu sama gëm-gëm la honnêtement. mais en tout cas loolu laa xalaat mooy foog ñu restructurer la poste defaraat ko pour mu pour mu pour mu suqale ko. waaw li ma ciy sànni ah, euh, parce que mm-hmm. dafa naa jël naa ko en maintes reprises euh, plateau. Mm-hmm. Euh, déjà comme ni monsieur Samba wax léegi fi mu daane laay laay laay laay laay tàmbalee ni nomination politique effectivement et puis espérons que autorité yu bees yi bañ a def même erreur. Mm-hmm. parce que booy xool ñoom. à part nomination politique dañu nekk post has-been maanaam poste boo xamante ni fu mu nekkoon soixante deux mille soixante sept. Mhm. te doon benn date noonu quoi fa lañ nekk ba léegi. wax na ko léegi mais poste bu pour comme ñooñu rek ñoo joxe lettre mais man je ne peux concevoir ak fi àddina toll post bu Sénégal ñoom. benn wala ñaari liggéey kese kese kese ñaari service kese kese kese lañ leen xamee xam nga wax na ko ni. service mhm. cak cak. Mhm. mais livraison ak bu moderne mais plus yu ñuy dem di ko jox ñoo xamante ni duñ ko exploité mooy euh, mooy. déedéet am na lu mu tudd. daf ma pub quoi comme promobile yooyu noonu ko xam nga am na am na benn terme bu ñu leen utiliser mais pourquoi poste bi nga ko def taman poste yi ma xam ci des pays développés mais dañoo am seen puce. on mobile. fu mu toll. moo tax ma amaa ah, nii laa doon wax voilà. Vemo ah Vemo bi. Vemo mooy virtuel yi maanaam maanaam nga jël ci opérateur nga jël ci opérateur pour nekk yow opérateur comme nga am sa puce voilà comme bi ñu jox euh, Mbak Mbak yu fa jox ko Youssou Ndour jox ko El Hadj xam ñooñu lañ jox te ci ñooñu ñëpp kenn rek fi mu ne nii moo ci def mais poste loolu liggéeyam la xam nga moom léegi nee na bi mhm. ah, fekk na ngeen déposé mais gisuñu leen ñu jox ko la volonté politique waaw moom la xam moo tax ma ni sànq à part dama ni hormi bu ñu génnee nomination. li nga wax moom rafet voilà dama ni hormi nomination politique yi da ngeen nekk. da dañu parce que <laughs> national ñoo ko moom mm-hmm. dañu nekk poste asbin boo xam xamante ni puusul paasul puusul paasul bu nekkoon joueur du doon sax remplaçant mais defe naa nag fi àdduna toll yéen ci nit ñi logique nit ñi ci poste la ñu war sax di sukkandiku pour xam fi àdduna toll man poste yi ma poste yi ma xam laa wax de poste yi ma xam en Europe non sérieusement mais da fàtte ay banque da ngay fàtte opérateur yi mais da ngay